ñu jëkk jékki beneen ñëwati wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin ko yàlla def na ci téere bi lu nga xam ne ku bëgg yërmande ci sa bopp ba nga am jàngooro boo bëgg yàlla saafara ko boo ko jaaree ci alquran yàlla mën na la ci defal sutura waaw beneen ñëw ndax boobu yonent bi dafay def bu jibril ñëwee di ko sa alquran fekk yàlla imprimé na alquran bi ci ci xolam mu jëkkantu di ko tari te Jibril waxagul sunu borom ni ko waaw de de ko de ko sarax bokk di di di ko sagal bokk bàyyi ko mu jaar ci ba noppi nga soog cee jaar waaye bu fekkee ne bu ñëwee bala mu lay sa yow nga wax yépp kon kay lu mu fi doon wut si waaw di ko wax yonent bi waaye fekk na booba yàlla moo ko def ci moom waaw mu indaale ko waaw merci yaari sax dafa mel ni bi ci de itam wa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna la yu'minuna bil axirati xijaban mastura waaw ñi daan nañ ko digle pour kuy xëy ngay jàng aaya ndax am solo gi mu am solo waaw te moo di boo dee jàng alquran lépp lu yàllaawul wala mu amee lor yàlla mën na dox sa digganteeg loolu ndax barke alquran waaw yu mel noonu ñu di ko jox yonent bi di ko ko sax ba ci faqra'u ma tayassara min alquran te mooy bu ngeen di jiitee ci nit ñi dee leen jàng saar yu woyof rekk saar yi bañ gudd ndax mën naa am am nañu feebar ci biir sàppe si wala am na ñu nga xam ni ñu nga ca jihaad ja dañoo bëggoon am ci yoolu salaatul jamaa rekk moo tax ñu ñëw gaaw pour ànd ak yéen rakk yi te delluwaat ca front ba waa ñu mel noonu ñu di leen bàyyi xel ba du ñu jàngal lu ëpp waaw yu mel noonu benn bu ci ne mais jàng bi jàng bi jàng bi bi ci gën a yéeme mooy examen examen de conscience bi waaw mooy bu mujj ba iqra kitabaka kafa bi nafsika al yowma aleyka xasiban kenn ku ci nekk yàlla ni laa jot nga sa kayit boo ko neewaa mun la jàngal li ci nekk règlement de compte amu fi yow yaay seetal sa bopp li ci kayit gi nga seet ci loo nekk ak ci foo jëm waaw mu mel ni kon boo seetloo yooyu yëpp te ok ñu bëgg ko tàmbalee parce que li ci ëpp sax ci leçon bi mën na am suba ci bëccëg bu fekkee ni yaatu am na ñu mottalee ko ci bëccëg bi te moo di yii nii alluwa yonent bi la concerné mais mu des nag njàng mi nga xam ne nag àlluwa penc mi ñoo ko soxla àlluwa penc mi itam li ci yàlla jàngale yépp ci ñaari baat rekk la ko tënk alam tara ak araayit li yàlla bëgg wax waa penc mi yépp tënk na ko ci alam tara ak araayit bu subaa dinañ ci ñëw benn par benn mais bi ci gën a am solo ñu war ko retenir dama dégg fan yi ñuy wut lu ñuy naxe nit ñi nan diw bi mu fi ñëweek léegi réalisé na nangam réalisé na nangam réalisé na nangam ma ne waaw alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama daati limaad allati lam yuxlaq mithluha fi lbilad wa thamuuda alladina jaabu soxra bilwaad wa firawna di lawtaad alladina taxaw fi lbilad fa aktaru fiha alfasad fa saba alayhim rabbuka sawta adaab inna rabbaka la bilmirsaad waaw maanaa buñ dee nawal nit lu mu def wala lu mu réaliser ci ci réewam te yàlla tudd na ñi tudd ba noppi tudd na aad tudd na iram tudd na thamud ah? tudd ñëpp ba tudd firawna wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilad te ci biir jamono képp ku réaliser lu lu jaaxal nit ñi walla projet bu bu bu gigantesque ñu ni c'est un projet pharaonique di wane ni dañ koy tollaleeg la Firawna defoon et pourtant ñooñu yëpp ak lañu def yëpp yàlla nee dina leen caw ndax inna rabbaka la bil mirsad waaw yàlla nee na matim yëpp ndax bu fekkee da ngay tabax dëkk yépp te yépp nga toroxal leen yàlla nee nga am affaire ak man waaw ba tax na ko nag ba defee kenn ku nekk nag yor sa laara sa kaala waaw ku di télélé li télélé li nangam parce que dig nañ la rek dinañ la sarax nangam daf ko jar daf ko jar waaw e nee nañu président nee na dinañu sarax juróom-ñaari milliards juróom-ñaari milliards yi dañoo xam fu mu jóge ñi ko fi indi lan moo taxoon ñu indi ko fi problème mu Sénélec bi ñu am courant yi coupé un peu partout ak li ñuy fayloo nit ñi kenn xamul nu mu toll ak route yi inondé un peu partout nit ñi amuñu fu ñu jaar oto yi amuñu fu ñu jaar waaw yooyu yëpp foofu la gënoon jekk foofu la gënoon jekk waaye dem ci borom tañ laa yi rek kenn ku ne dajee la ay nangukatu àddiyaam ñuy lay wax di la Tiwaawan nag moom da ngay defe ni meeting a xew waaw ñi ci des sax correct nañu Njaasaan correct nañu Ceneba correct nañu hmm? un peu partout ci Tuubaa it sunu maam bu baax ba wax na la mu koy wax et c'est très très clair waaw ni ko bu fekkee ni def nga fi lu nekkit ma di la yëgal ni élection mosu fee am ba nga gàñe fi loolu li mu lan la ce qui veut dire mën na ni parce que dama gis sànq ministre de l'intérieur di ko wax nan dafa dem Arabie saoudite gis fa benn genre musée boo xam ni musée islamique la la fa nekk yéeme mu demandé roi bi pour ñu defal ko musée bu mel noonu ci Sénégal ndax mais Sénégal am na leneen lu mu tal lu dul musée hmm? yonent bi li ñuy dunde ci moom duñ ko jaar ci musée ndax li xew nii yonent bi bi ko Maodo di sonne Serigne Touba di ko sonne mais boobu ñoom xamuñu woon luy musée seen yitte rek ak seen taxawaay la def ba nit ñi yegg fi ñu yegg tey waaw ba tax kon nag bu ñu bëggee nax nit ñi di ko jaar fii ak wax yu kenn xamul doxul doxul moo tax jël na ay disposition euh, fontu baaxul fontu baaxul parce que loolu Mimi Mimi Touré wax wax ni bu ñu accepter candidature Amadou Ba booy boo ñu jàpp ni accepté nañu troisième mandat bu Macky Sall. elle a parfaitement raison elle la parfaitement raison ba tax na kon nag.